dal leen ak jàmm ana lan la lislaam wax ci jigéen bu ëmb ci biir néegu sëyam ba pare tas ndax jigéen bu ëmb mën naa ñaan baat ñaari laaj yi nag oustaz Iran Ndao wala oustaz Alioune Sall war nañ cee indil ay leeral ndax kat Fama Thioune moom di ab animatrice ca télévision Futurs Médias lu ni mel moo ko dal moom mi doon sëyëg ak ku ñuy wax Matar Seck di rak ci waykat bu mag bii di Coumba la Seck ñoom ñaar dañoo tàggoo ci jamono joo xamante ni Fama dafa wan génn na di xamle ni digganteem ak Matar Seck jeex na mu mel ni boobule sorti jëkkëram ji woon digéré wu ko ndax kat dafa génn amal ab sorti di xamle ni boobule divorce du dëgg ñoom ñaar dañoo amoon ay problème lekk comme ni ko yeneen couple yi di amee moom Matar Seck sax jotoon na xamle ni Fama Thioune moom mooy léppam te moom rek la bëgg ci kaw suuf waaye nag mu mel ni faama Thioune dafay tiñal ki nga xamante ni moo nekkoon jëkkëram ginnaaw sortem bi ci la animatrice su groupe Futurs Médias bi daal di génn ci Instagram xamle ni consommé na divorce am dem na sax ba bind ci paasam boobu call me Miss Thioune maanaam woowee ma mademoiselle Thioune génnub faama Thioune bi nag ci Instagram ñu man koo méngale ab coup de tonnerre waaye nag li ci doy waar bu ñu sukkandikoo ci suñuy information moom faama Thioune jot na ëmb laata muy génn ci bile sëy ci baat bi nag site internet yu bëri jot nañ koo siiwal ginnaaw bi nga xamante ni faama Thioune na ab divorce am ci réseaux yëpp ci leeral nag faama jot na ëmb ba toll ci ñetti weer laata muy wan ginnaaw ki nga xamante ni moo di jëkkëram ji bi di Matar Seck xanaa rek ñuy xaar suñu borom xam-xam yi ci wàllu diine islam ku ci mel ni oustaz Iran Ndaw oustaz Tayib Socé wala oustaz Aline Sall ñu indil ñu ay leeral ci mbir mi maanaam ndax jigéen am na droit daal di ñaan baatam ci biiru néegub sëyam ci jamono joo xamante ni dafa ëmb te ki ko ëmbal du kenn ku dul jëkkëram bi nga xamante ni ñoom ñaar jot nañoo sëy ci lu toll ci fukki at lum ci mën di doon dinañ leen toppal xibaar bi ba fu mu yam